moomeelu réew mi yitteel ñu bëri moo tax ñu fas yéene dalal ay kilifa boroomi xam-xam fii la ñuy teew di doon samay gan moo xam ci pouvoir lañu nekk opposition wala sax société civile lépp ngir gindi askan bi ñu daal di gën a leer ci li nga xamante ne rek mooy li ñu bokk ay bés bu nekk lay doon fii ci Sans Limites TV bu leen ko wut jërëjëf euh, yéen ñi tàmmu Sans Limite TV euh, ngir euh, jële fi ay xibaar seen émission face à l'actu dellusiwaat dalalaat beneen kilifa boo xamante ni ba tey ci élection yi nga xamante ni ci lañ jëm ci logique boobu lañ nekk ngir saa su nekk wan askan bi ñu xam rek ku ci nekk yéene bi nga xam ni am na ko jëmee ko ci askan bi ndax it ci ay jongante lañ jëm te dina baax nit ñi mën a mën a tànn nekkoon na fi euh, premier ministre bu Sénégal ci jamono jamonoy président Abdoulaye Wade jotoon fi nekk tamit maire bu di neew yu occupé woon na itam yeneen ni post de responsabilité euh, ñu xam ko ci nekk njiitu euh, parti bii di Union nationale pour le peuple mu di Souleymane Ndéné Ndiaye moom la ñuy dalal tey ci plateau gi kilifa gi dalal jàmm. maa ngi lay nuyu di la gërëm soxna Aram di nuyu di gërëm. spectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen euh, seen chaîne sans limite ci invitation bi am mbégte nag ñëw fii parce que c'est la première fois ma fi maa ngi lay sant bu baax di xaar nag euh, laaj yi <laughs> jërëjëf dañuy njëkkee euh, ci sa candidature ndax it nag gis nañ ne yaa ngi woon biir Benno Bokk Yaakaar jékki-jékki génn taxaw ne danga bëgg a nekk candidat ngir jiite réew Sénégal pas-pas bi fan la jógee lan moo la décidé ba nga bëgg jékki-jékki bokk euh, si maa ngi lay sant bu baax Aram euh, c'est vrai xam nga ko ci majorité présidentielle la bokkoon xam nga majorité présidentielle dafa am benn bokk yaakaar mm. ak euh, la grande coalition c'est d'autres partis yoo xam ne bokkuñu benn bokk yaakaar mais ñoo benn bokk yaakaar ñu ànd jàppale président de la république mm. donc man dama doon jàppale président de la république très bien alors bi annoncé candidature jotee aussi ma jàpp sama jaar-jaar ak euh, sama xam réew mi euh, may na ma ma nekk candidat proposé wu ma suma candidature président de la république Macky Sall soxla wu woon sax proposé ko. ko doon bañ sonal. non non du ma ko sonal sax mais du moom moo may sant ma dem wala du ma dem. parce que man je suis un homme libre. Euh, donc am naa jaar-jaar am naa parcours te am na lu ma xam ci ni ñuy téye réew. Hmm. loolu moom ma waral moo waral moo expliqué ma déposé sama candidature. ci euh, direction générale des élections pour am euh, fiche su parrainage yi parce que candidature à la présidentielle moom jotagul. waaw candidature candidat à la candidature comme ni ñu koy waxee moo jotagum donc loolu moo ko expliqué donc euh, c'est bu ma ko mënee tënk daal dama ne damay wax ne vraiment suma candidature dafa dafa jaadu ci li ma jàpp ne ku jaar fi ma jaar. Euh, xam li ma xam ci réew mi euh, yëpp boo ko boolee donc suma candidature dafay jaadu waaw. mën na jëriñ askan bi mën na jëriñ askan bi ci lu bare bare bari ndax xam naa Sénégal bu baax euh, fukki région yi ak ñeent amul ci benn département bu ma parcourirul. te fukki région yi ak ñeent fukki département yi ak juróom-benn amul ci benn boo xam ne xawma lañ fay def pour gën a ñoŋal économie ba fa nekk. Mm-hmm. gën a développer terroir ba. donc loolu may na ma ma xalaat nag 557 communes yi ci Sénégal yi ma ci demul bariwul euh, kon nag vraiment jàpp naa ne euh, xam naa réew mi suffisamment euh, pour mën a ne damay bokk ci jongante bi nga xam ne moom le 25 février 2024. jàppale bi ci président Macky Sall rek la yam ba bu taxawee moom am yéene ne. Ah, keneen dana continuer li nga xam ne mooy ambition projet pour xam nga jàppale bi aussi c'était pas jàppale bi président Macky Sall moom moo woo ma naa ko jàppale. ci li muy tabax Sénégal. alors comme man tabax Sénégal moom mu taxoon jóg ma ne naa jàppale président Macky Sall ci li muy tabax Sénégal mais comme moom euh, bokkatul euh, gisuma lu war a tax ban ma war a nekk ci gannaaw keneen ku may tàddal pour ne naa ko jàppale. continuité lañu wax. non continuité wu bon en tout cas man gisee wu ko noonu ni ma ko gisee daal mooy président Macky Sall laa doon jàppale jeexal na euh, ma jàpp ne man mi war naa mën a teg sama ndënd comme ni ñu koy waxee. Mhm. pour aussi laaj baatu sénégalais yi bu fekkee ne am nañ ko ci man. nee nga xam nga gox yeeg goxaan yi Sénégal. kon yow parenage waru la xaw ma ndax dina ma jaaxal du ma jaaxal mais en tout cas maa ngi ci. maa ngi koy dox maa ngi koy wax ndax parenage bi aussi lu am solo la ndax boo xoolee euh, bu amuloon parrainage dinañu am 236 candidats au moins candidature bu nekk am nañu ko. Mm-hmm. ñi xam ak ñi xamul ak ñi bëgg ak ñi bëggul ak euh, ñëpp daal ñu ngi ci sa mboxloo bi te loolu nag jaaduwul parce que démocratie aussi dañ koy encadrer. bu amuloon parrainage yaakaar naa ne dinañu gis désordre boo xam ne kenn du xam noo koy noo koy regle alors moo tax parenage lu baax la donc maa ngi ci euh, incha allah bu évaluer jotee dina ñu toog évaluer parrainage bi xam ndax euh, dinañ ñu bàyyi ñu bokk ci élection yi wala duñ ñu bàyyi. amoo ci benn jafe-jafe. amaguma ci jafe-jafe pour le moment amaguñ ci jafe-jafe pour le moment euh, donc ñu ngi ci daal ni ñu ko tëralee ni ñu koy doxalee du lu may wax fii ci télé bi nag waaye ñu ngi ci ñu ngi koy dérouler. ñu koy déroulé. ñoo ngi gis ku mel ni Khalifa Sall euh, démb ci njot ci xibaar wala maali gàkk wala sax bés yi nga xam ni jot nañ ko jàll ay ay responsable yoo xam ni ci ko jéggi la féete. di am jafe-jafe euh, waaw ak keneen ak keneen ak keneen. c'est pas euh, normal Babacar Ngom c'est pas parce que fi mu toll fi réew mi toll comme ñëpp ñooñu nga tudd ñëpp xam nañu ne dañuy def dañuy wër réew mi pour wut ay parrain mm-hmm. ni ko. premier ministre Amadou Ba di wuutee ñu ngi ne tey mu ngi dans le nord du Sénégal. tournée économique lañ ko def. bon loolu dañuy wax rek campagne électorale la nekk kon nag ni ñu ko bàyyee Amadou Ba di ko def lañ ko war a bàyyee candidat yépp def ko parce que aussi euh, xam nga l'égalité des citoyens devant la loi. Hmm. loolu principe la principe universel la alors mënuñu bàyyi donc ki nga xam ne moo nekk ci pouvoir bi di dérouler lu mu ko neexee bu demee préfet yee koy accueillir. ñoo ñi ngi ma tuddal léegi soxla wuñ préfet di leen accueillir parce que ñoom askan wi la ñuy dem seeti ba pare ñoom bu ñu ko defee euh, Anta Babacar Ngom wala muy Abdourahmane Diouf wala muy euh, Malick Gakou wala muy Khalifa Sall wala muy keneen ñu di leen ko tere di leen opposer la loi je pense que loolu aussi jaaduwul lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a xool parce que ñëpp war a tolloo traitement alo euh, tey boo nee li muy def pour Amadou Ba campagne oui alors, campagne la de tournée économique lañ ko lañ ko dippee ci li nga xam ni mu ngi mu ngi mu ngi jot di déplacé wu ci yenn localité yi muy dem ànd ak jëwriñ ñu ak ñoom seen euh, naka lañ ko mën a déggee noonu bu fekkee ne ba tey président la àndal lan moo tax ñu bëgg a gëm ne campagne électorale la. non campagne électorale la nekk parce que euh, fu mu dem gisuma euh, man tournée économique laa xamul moom lu muy lu muy tekki xamul lu muy tekki. wala moment bi ñu ko defee. mooy problème bi non il aussi la mobilisation de leur personnel politique parce que je l'ai vu à Richard Toll et a Dagana mu ànd ak président Assemblée nationale. waaw. en principe les pouvoirs doivent être séparés dans l'État le simple fait que président Assemblée nationale rejoindre ko à Richard Toll ak à Dagana loolu prouve que mu ngi en campagne électorale. parce que gisuma euh, Assemblée nationale ak exécutif nu ñu mën a amee confusion ba premier ministre ak président Assemblée nationale bokk oto euh, kande ay ay slogan di wuti euh, ay parrain je pense que loolu wane na à suffisance que bu en campagne électorale comme ni ko Abdourahmane Diouf wala Malik gako wala Khalifa Sall. di euh, di ko bëgg defee kon ñuy wax tey ne premier ministre war a tekki ndombal tànkam ñii ñu mën a dissocier rôle bi nga xam ni am na ko ci wàllu primature bi ak li nga xam ni en tant que candidat mu jëbal. da ngay dégg loolu man nag loolu loolu moom ànduma ci. ndax tey bu fekkoon ne président de la république mooy candidat. dafay continuer di nekk président de la république en même temps nekk candidat kon nag bu premier ministre nekkee candidat en même temps mu nekk premier ministre gisuma vraiment ban confusion ak lan la mën a yàq ci déroulement ak fonctionnement wu état kon nag loolu moom ànduma ak ñuy wax ñuy euh, soulever argument boobu donc vraiment jàpp naa ne premier ministre am na droit nekk premier ministre en même temps mu nekk candidat. mais comment faire la part des choses nga loolu amul distinction. le premier ministre restera le premier ministre le candidat euh, c'est le premier ministre qui est candidat kon nag mënuma gis ñu def séparation entre les deux personnages le personnage euh, qui va solliciter le suffrage des Sénégalais ak personnage bi nga xam ne mooy exercer les fonctions de premier ministre nañ jàpp rek ne daal premier ministre Amadou Ba moom la euh, booram tànn pour mu nekk candidat wu benn Bokk Yaakaar ak ñi ànd ak ñoom kon nag am na droit nekk premier am na droit aussi nekk candidat yan lan lan lan nga xam ci ci premier ministre Amadou Ba wala euh, ndax jot ngeen am ay relation ci seen jëflante wàllu. am na ñu relation am nañu relation parce que d'abord depuis le lycée c'était mon cadet au lycée. D'accord. ensuite à la fac donc am ñu vraiment relation de de de de respect mutuel quoi voilà nu ma ko mënee tuddee. Mhm. waaw vraiment. ci wàllu politique nag. non ci wàllu politique moom yow nga nekkoon euh, premier ministre waaw ci wàllu politique moom amuñu benn relation mosuma toog moom ñu wax politique jamais mosula waaw. su ma premier ministre ñoo naan tase ci élection yi. waaw mais loolu dina neex parce que kenn ku nekk dina jàkkaarloog moromam mu déroulé wax naka la gisee Sénégalu tey ak Sénégalu ëllëg lan la envisager pour changer réew mi ni muy doxee nii loolu yëpp euh, euh, bu ko yàlla dogalee dana mën a am parce que premier ministre Mohamed Dionne mu ngi ci biir. Mhm. premier ministre Abdoul Mbaye mu ngi ci biir premier ministre Amadou Ba premier ministre Aminata Touré Mimi. Euh, ak euh, def naa lim naa ñu war a bokk ñëpp ci premier ministre yi voilà ak premier ministre Hadjibou Soumaré Cheikh Hadjibou Soumaré euh, donc loolu it dafay enrichir débat politique bi ñu xam ne ñu xam réew mi aussi ñu ngi ci ak côté de ñi nga xam ne woon xamuñ ci réew mi dara ah, bëgg a dugg ci sa mbaxloo bi rek moo leen ci boole. bu ñu leen woon tey waxtaan yow Amadou Ba toog. ah oui oui kon ñu toog waxtaan kon ñu toog waxtaan bu baax danaa ko nangu. waaw loolu dinaa ko nangu. Mhm. waaw dinaa ko nangu dinaa ko nangu ndax xam naa li may wax. waaw man li may wax dama koy euh, teg ci fu leer waaw <laughs> ci xam-xamu réew bi ak xam-xam boo xam ne xam-xamu euh, lu ma vivre la lu ma dund la euh, ci non seulement parce que avant may nekk premier ministre nekk naa ministre secteurs yu am ah. importance donc nekk naa maire nekk naa vice président conseil régional nekk naa conseil municipal depuis 1996. Mhm. kon nag am na lu bari lu ma xam nekk naa ci jeunesse politique yi nekk naa ci jeunesse estudiantine yi. donc am na lu ma xam ah, am nga parcours bi. am naa parcours am naa parcours. am na en tant que acteur politique euh, cii lu mu am ci jaar-jaar bu mu ko mënee wax loolu est-ce que euh, di nga nangu kon fu mu agsi tey. ci ah peut-être bi oui oui dinaa ko nangu dinaa ko nangu parce que c'est un haut fonctionnaire qui a dirigé les impôts pendant longtemps. nekk na ministre des affaires étrangères nekk ministre de l'économie et des finances donc vraiment am na parcours bu élogieux war na mën a nekk premier ministre war na mën a nekk président de la république mhm. waaw loolu moom du ko bañal dàqoo suba bu jaroon ngeen àndaat pour liggéey mën na ne non je ne sais pas loolu moom mënu ma ko wax loolu moom yàggaguma ci li ma bëgg daal mooy man sénégalais yi fànn ma février 2024 ci fànn boobu daal laa tolloogum man voilà ci liggéey gi nga xam ni yéen a ngi koy def am ngeen nattukaay bu leen di may ngeen mën a xam tey du ngeen di am problème mu doublon wala ngeen def effort ba yéen yi du ngeen ko am. ci waaw loolu nag moom lu jafe la pour le moment tant que déposé wuloo say parrain au niveau du conseil constitutionnel. Mhm. jox la résultat mënoo xam ndax d'identité euh, yi ñu la jox ak parrain yi la signeel. ndax mi euh, defaloon nañ ko sa morom wala defaluñ ko sa morom. Mhm. Euh, xam nga li ñu wax dañ ne. bu ñëpp déposé dañu def tirage au sort pour déterminer ki ñuy kiy jiitu ki ci topp et cetera ba ba ñuy yegg ci euh, ka nekk cat la alors ci boobu bu boobaa rek lañuy natt xam nga loolu aussi du euh, maanaam ku njëkk a yegg si mën na ëpp chance par rapport du ku njëkk a yegg la ñuy def comme premier bu ñëpp déposé parce que loolu aussi mooy démocratie bu doon ku njëkk a yegg si rek am na ci ñoo xam ne euh, su leen neexee tout de suite ñu am 120 maires Euh, wala treize députés dem déposer mais doxewul noonu dañ ne bu à partir du onze décembre au vingt six décembre bu ñu déposé ba pare ci la ñuy jukki xool ki jiitu ki ci topp ñi ci topp et cetera. ba ba ñuy dem ci ka mujj. bu boobaa ki jiitu moom duñ ko opposé ay affaire doublon ñi ci topp kay lañuy wax ne leen yéenkat seen pare yi ngeen am ni ki leen jiitu pare woon nañ ko ba pare. Mm-hmm. mais ñiy parrainé aussi dañu war a xam ne nga ne ñaari candidat infraction la mu ngi ci daal ci fiche de parrainage bi ñu ngi ko ci bind. d'accord noir sur blanc. waaw ah, kon nag euh, vraiment amuñ benn nattukaay pour xam ndax pour le moment am na doublon amuñu doublon. mais lu génn di ngeen ko d'accord. ah en principe man lu di génn moom mën naa cee d'accord bu fekkee ne jaar na yoon te amul benn raison pour que ma gëm ne ma yaakaar wala ma xalaat ne wala ma njort ne euh, lay xew conseil constitutionnel am na lu ci tâche parce que xam naa. membre du conseil constitutionnel yëpp xam naa leen xam naa ne ay nit ñu am maanaa la ñu te parcours bu élogieux moo tax ñu yóbbu leen foofa waaw kon nag amul benn raison pour douter de leur sincérité wala vraiment ci résultat bi nga xam ne dana génn ci foofa. alors jamono ji nga xam ne yéen yéen a ngi mën a commencer collecter ay parrains am na ci koo xamante ne mu di Ousmane Sonko mandataire am Euh, DG nanguwu ko jox euh, fiche parrainage la ca topp gis nañ ko ci communiqué yu génn ak avocat yi parti bu nekk euh, ngir wax lan moo tax moom joxewul fiche yi yoon la mu bañ ko ko jox. ci li nga xam ni expliqué na ko ci communiqué bi. xam nga man dama jàpp ne état de droit du slogan bu ñuy wax ni rek un slogan creux. Mhm. état de droit dafa am contenu ñetti contenu la am l' état doit se conformer au droit. l'État doit se soumettre au droit et l'État doit assurer l'exécution de la règle de droit képp ku jàng droit boo ne état de droit ñetti continue yi nga koy jox bu fekkee ne monsieur Ousmane Sonko dañ ko radier ci liste yi ay avocat am dem ca fañ koy atte attekaay attekat bi ne dañ ko war a dellowaat ci liste yi même bu fekkee ne état du Sénégal dafa exercer voie de recours contre cette décision là dañu war a wéyal décision boobu juge bi rendre loolu mooy l'état doit se soumettre au droit l'état doit se conformer au droit l'état doit assurer l'exécution de la règle de droit donc loolu direction générale des élections def teguñu ko fen teguñu ko ci yoon ci doole lañ ko teg teguñu ko ci leneen lu doole donc pour le moment en e attendant que amul sañ-sañu bañ a amul amul sañ-sañ bi amul mais DGE dañ koy jox diggal ne bu ko nangu bu ko nangu lañ koy wax bu bañ ko nangu ku ko jox ndigal xam xaw ma ku ko jox ndigal ña dem ko féete kaw parce que nag xam nga administration ni muy demee dafa am c'est dafa autorité yu nekk ci kaw ñu nekk ci suuf et cetera ba ba ñu yegg ci échelon euh, ci département ministère de l'intérieur donc donc li ma jàpp mooy na ñu jox euh, monsieur Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am maintenant décision boobu ñu jël euh, tribunal d'instance bu Ziguinchor président ba jël ko mm-hmm. bu fekkee ne frappé nañ ko de d'une voie de recours Euh, juridiction bay ba ñuy saisir yi bu jëlee beneen décision bu uuteeg ba président bi jël bu boobaa ñu ne kat ah sëñ bi autorisé woon nañ la waaye nag léegi dañ koy dindiwaat ndax juridiction bi nekk au-dessus de juridiction bi rendre décision bi à Ziguinchor nanguwu ko defe naa noonu la état de droit di doxee mais li ci des li ñuy def li yëpp jaay doole la. waaw jaay doole boobu noonu. acteur société civile comme am na aussi des acteurs politiques yu koy ñaawlu di wax ne Sénégal dafa deltu gannaaw ci li nga xamante ne am na ko comme ay acquis Euh, ci wàllu démocratie ak état de droit loolu wér na wala euh, problème bi am mënul tax ñu remettre en cause li nga xamante ne mooy euh, alors man duma damay apprécier ne au cas par cas du ñëw rek jël benn jugement bu global les état bi lii li ma jàpp daal ci wàllu Ousmane Sonko bi nañ ko jox ay fiche de parrainage mu parrainé comme tout le monde en attendant que la décision de la juridiction ki a été saisie mu mu rendre ko mu vider ko ñu mën a xam euh, fan la ñuy féetee définitivement mais en attendant dañ ko bàyyi mu mu pare de comme tout le monde. alors euh, boo doon natt tey euh, ci nga xamante ne rek moom laa doon sànq muy état de droit ci Sénégal ci président Macky Sall. non mënuma juger globalement Macky Sall par rapport à l'état de droit dama ne man li may juger mooy dans le cas précis du président Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiche de parrainage mu dem parrainer ji comme tout le monde. Mm. maintenant le moment arrivera où on on le bilan général de. euh, du règne du président Macky Sall entre 2012 et 2023 ou 24 hein, ce qu'il a fait de notre état de droit mais je ne pourrais pas m'engager dans ce débat là ñi ànd ak moom li ñuy gis moo di ne euh, dañ ko bëgg a xaj mu bokk ci élection yi te jot na fi am ñu fi jaar ñoo xam ne dund lañ lu mel noonu dañ ko bëgg a xaj mu bokk ci élection yi loolu daal tant que euh, mënuma euh, man di def ce genre de projection li may jàpp di ko apprécier daal mooy de façon ponctuelle lii direction générale des élections def par rapport à la décision rendue par le juge euh, d'instance de Ziguinchor ci wàllu euh, ñu dugal réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral bi loolu moom état bi mënuñu génne benn argument boo xam ne mën na justifier refus direction générale des élections d'accepter de remettre au mandataire de Ousmane Sonko les fiches de parrainage amul mënuñu Moussa bi décision boobu ñu jël mën a conforme au droit voilà très nga doon bëggee président Macky ci liggéey bi nga xam ni woo na la ko mën nga natt li nga xamante ne ànd ngeen ko ci wàllu liggéey euh, la nga ci doon séentu gis nga ko ci wala ba mu la woowee la mu la doon euh, soxlaa ci cadre boobu noonu amee nga taxawaay boobu. waaw alors président Macky boo na nattee li mu liggéey diggante 2012 ak tey am na ci lu bari lu baax. ndax sur le plan sur le, le bilan matériel mën nañ koo mën nañ jàpp ne ci sama euh, parce que nit ku ne nag ak sa euh, xalaatu bopp mm. li may wax sama xalaatu bopp la jàpp naa ne président Macky Sall def na ay euh, infrastructure yu bari yu baax def na ay route yu bari yu baax def na ay pont yu bari yu baax sur le plan de la paix et de la stabilité def na lu bari lu baax parce que man dama yaroo Casamance xam région de euh, Ziguinchor bu baax a baax a baax daan fa dem. Mhm. avant muy am crise daan fa dem pendant la crise di fa demaat léegi bi nga xamee ne diggante 2012 ak tey donc ci plan yooyu lu baree bari bari li ma président Macky Sall def. am na ah, am na def nay ay yu bari. Euh, dafa teg tànkam rek fi président Abdoulaye Wade yemoon parce que ci président Abdoulaye Wade lañ mës a gisee président bu fi jógee bàyyi bilan. ah ñu ne moo fi def lii def fi lii def fi lii ah loolu avant loolu amul woon. bi mu ñëwee aussi moom. vraiment mu continuer ci lancé boobu parce que nekk nag président Ablaye Wade huit ans donc gis na fi président Ablaye Wade daan teg tànkam mu continuer ko wéyal ko mais à côté de cela am na ay raté yu bare bare bare notamment sur le plan des libertés su le plan des libertés boo xoolee diggante 2012 ak tey bari na daal ay pëccaxoo jàmma euh, jàppante yow daa bari na fi. loo xam ne mosul am boo xoolee dem bilan wu diggante 2012 ak tey ñi fi dee ci ay manifestations. mosul am ci Sénégal. xëy na bala maa engagé wu sur le plan politique xëy na avant les pendant les années 68 69 xëy na 73 euh, mais diggante 2012 ak tey am na manifestation yu bare bare bari ponctuées par des morts d'hommes diggante 2012 ak tey ñi ñu fi jàpp ci ay nit bari na pour diverses raisons euh, justifiées ou injustifiées je ne sais pas mm-hmm. alors diggante 2012 ak tey bari na scandale yoo xam ne euh, waxuma dañ ko étouffé mais amul suite notamment les fonds Covid les mille milliards bi léegi kenn xamul xëy na comme l'enquête est secrète xëy na ñu ngi def seen enquête ci biir comme je ne suis pas dans le secret des dieux mënuma xam fan la procédure yooyu toll donc euh, à côté de son bilan matériel que j'apprécie hein, euh, il y aussi beaucoup de ratés euh, je, je donne comme exemple l'agriculture mmh. aujourd'hui lépp je peux considérer da naa jàpp béykat yi dañ leen bàyyee à eux-mêmes amatuñu bu baax amatuñu engrais euh, daaw dégg naa ne Sonacos bi daan jënd lu trois cent mille tonnes de graines d'arachide seize mille tonnes la jënd paysans yi léegi dañuy préférer jaay seen gerte chinois yi plutôt que ñu jaay ko sonakos alors boo demee léegi y a une paupérisation généralisée du monde rural boo demee ci man ci àll bi laa dëkk dama am benn dëkk bu tudd jàngaan barka ci loor fële ci bor yi Djilor diggante Djilor ak Passy fa laa dëkk donc boo demee foofu da gis ne béykat yi léegi ku ci amul doom buy liggéey di la jàppale tu vois tu tires le jàpp par la donc loolu yëpp yaakaar naa ne bokk na ci euh, un ci vraiment passif fu euh, bilan mu président Macky Sall mhm. voilà tey euh, yaa ngi ne am na yoo xamante ne ni des na yooyee ndax dafa laaj enquête dafa laaj ñu def suivi dafa laaj ñu évaluer pour que kii ñëwaat encore euh, mu nekk loo xamante ne du nekk lu ñuy wax rek jotoon nañ ko te fa dañ ko fàtte. non non immanquablement ki fi ñëw li muy njëkk a def bu ñëwee euh, bu toogee day danañ ko xam nga euh, passation de service dañ lay jox ay dossiers. oui la tolluwaayu kenn ministre bu nekk secteur ba mu nekk tolluwaayu secteur am. Mhm. président de la République yi boppam buy def passation de service ak ki koy remplacer daf ko jox ay dossiers. bu ñu toogee nag am na diir boo xam ne mën nañ cee xool li leen jox fi mu toll lu tax mu toll foofa lan lañ ci war a càmbar te comme ñun ñëpp ay sénégalais lañ. nopp amul kubéer diggante bi ñu fi toogee ak tey lu bari dégg nañ ko li ngay dégg yëpp dangay bëgg càmbar ko xam la ca xew nam ca xewee ak lu tax mu xew ca wàllu Covid bi ak wàllu yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. kon kii ñëw li koy xaar bari na. ci ay ah oui li koy xaar bari na parce que. xam nga 12 ans de règne dafa xaw a bari donc ki toog 12 ans ki koy remplacer bu ñëwee toog il faut mu évaluer dure euh, durée euh, euh, disons contenu yu exercice su mandaam il faut que mu évaluer ko nat nam ko évaluer pour moom président bi la koy évaluer pour ñi àndoon ak moom nekk ay jëwriñ ministre wala directeur wala en tout cas doon gérer alalu réew mi loolu yëpp loo xam ne euh, ki koy remplacer dina ko évaluer très bien mm. alors wax nga euh, ci euh, li nga xamante ne mooy conférence de presse bi nga def ngir fësal euh, sa candidature ne am nga yéene ci réew mi boo ko doon tënk ci ay axe lan la ci yan lay doon. alors man suma bu fekkoon ne fal nañ ma président wu Sénégal dina fexe ba agriculture ak transformation des produits agricoles nekk fer de lance économie bi. mais xam nga dafa am lu bees ci réew mi loo xam ne 2024 kii ñëw dina ko jël en charge jël ko en considération muy exploitation pétrole bi ak gaz bi mm-hmm. loolu lu bees la loo xam ne dina indi koom ci réew mi donc euh, bu ñu jëlee parce que réew mi boo xoolee presque 80 pour cent ñu fi dëkk euh, ci dëkk dëkku àll yi lañu dëkk alors donc boo développer agriculture transformation des produits agricoles nga bancari nga nga réorganiser les paysans dans des coopératives parce qu'il faudra nga indiwaat man en tout ma indiwaat coopé hmm. coopérative xëy na yéen seen jamono xamu leen lan mooy coopérative mais ñun suñu jamono xamoon nañ coopérative coopérative mooy dañuy boole paysans yi nga xam ne ñu bokk gox ci kuréel gu tudd coopérative euh, bu ñu jaay gerte coppe ba lañ koy jaay coppe ba mooy am relation ak usine ba wala beneen euh, kuréel goo xam ne mën naa jënd gerte ga pour euh, transformer ko wala pour def ko leneen ñun li ñuy def mooy. te ci lebal yi sax banque yi coopérative mooy gën a am doole. très bien et bu boobaa sax ñun banque euh, banque agricole bi am nii dañ koy jouer le véritablement son rôle mu am agence banque agricole dans chaque commune du Sénégal. Mm. dans chaque commune ñu bancariser ko xam nga bu njëkk dafa amoon lu ñuy wax ONCAD. ONCAD dafa amoon ay peseurs. ñu daan nekk ci SECO yi am ay ABC agent de base de la coopération am ay UCP am ay superviseur alors peseurs yi gars yi dañaa ñëw jël xaalis liquide vingt millions jox la ko nga daw booba ba léegi sax dañ naan euh, la les détournements de deniers publics se prescrivent par sept ans maanaam boo sàccee xaalis réew mi daw juróom-ñaari at su la neex nga dellusiwaat kenn du la topp loolu moo amoon alors loolu nag dafay jeex dootu jëlee ci argent cash di ko jox ay peseur euh, borom gerte gi bu demee ci seko bi jaay ko mhm. dañ koy jox papier mu dem crédit banque agricole wax ñaata la ci euh, quantité ñaata la ci koppar ñu jox ko carte bancaire mu ngi ànd ak doomam boo xam ne jàng na école alors day am donc immédiatement compte bancaire banque agricole. très donc bu ñu ko joxee carte bancaire boobu moo xam mu bëgg a jël xaalis bi tey jël lépp wala mu bàyyi fa dara. en tout cas day yor carte bancaire am boo xam ne daf koy may saa yu soxlaa xaalis rek mu dem récupérer ji ko. régularisation boobu noonu du jël temps. mais donc mun na jël temps mais dañ koy indiwaat parce que ñu nekk ci àll bi xamoon nañ leen mooy coopérative déjà donc indiwaat ko du am problème. Mm-hmm. parce que nit ñi formé waat nañ leen bu baax a baax a baax te dëkk yi nga xam ne ñoo constitué euh, li may li ma ci teg aussi mooy euh, la loi de 2014 là sur la communalisation universelle dama koy abrogé. parce que baaxul. ndax dëkku àll mun loo ko def dëkku taax te defoo ca àll ba lay tax ñu mandargaal dëkk bi ne mooy dëkku taax loolu moom vraiment lu lu lu catastrophique la la communalisation universelle donc euh, bu ñu jëlee dans chaque commune du Sénégal dans chaque village du Sénégal ñu jël organiser waat paysans yi en coopérative mu am président coopérative am euh, trésorier coopérative euh, bu ñu joxe jiw defe naa ci coopérative bi lay jaar du ñu dañ bàyyi ñu ñëw jël famille boo xam ne lu mu am na lu mat cinquante personnes ñu ne bopp juróomi kilo bopp ñeenti kilo donc ça ne sert ñu créé waat le service semencier national parce que semence d'arachide ni ñu koy defaree fi mu nekk ni bo baaxul gerte gi ñuy jëlee ci paysans yi bu ñu jaay gerte la ñuy jox yi ñuy wax OPES ñu ubbi ay magasins ci seen ay zones yi leen affecté gerte googu li ñuy redistribuer aux paysans au moment la distribution des semences lu semence du n'importe quelle graine d'arachide moom mën nekk semence donc loolu yëpp ay réforme la yoo xam ne dafay laaj ñi nga xam ne maîtriser nañ ko xam nañ ko ñu teg leen ci place yi ñu leen war a teg ñu gérer ko. man su ma déggee li nga wax nii damay jaaxle ndax li nga xamante ne nii euh, président inscrire na ko euh, ci euh, li nga xam ne mooy PSA bokk na ci autosuffisance alimentaire gën a dooleel baykat yi jàppale leen sur le terrain créer ay ay ay ay DAC ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne lépp ngir gën a jàppale baykat yi wala loolu ñu bind loolu ñu bind li ci ëpp ay slogan la mais boo demee sur le terrain <laughs> doo ko doo ko gis doo ko fa gis parce que li li li ëpp solo du li ñu bind li ëpp solo booy li nit ñi di dund li nit ñi di dund dafa uuteeg li ñuy wax ci rajo yeeg télé yi boo déggee ñu naan taux de croissance 8 pour cent lan mooy taux de croissance taux de croissance mooy lan le taux de la richesse nationale mais gis nga sénégalais yi xamuñu loolu croissance bi duñ ko lekk xam nga lu ñu xam euh, bëgg faju faju bëgg lekk lekk bëgg yóbbu seen doom école yóbbu ko école bëgg tabax kër tabax kër tant que egsi wuñ ci loolu croissance mënuñ ko wax boo demee ci àll bi tey. naan ressenti tamit ci population bi loolu la war a gën a bàyyi xel que chiffres yi ñuy. mais mais loolu moo loolu moo moo tax ñuy ger pays mais chiffres yi du dara chiffres yi. ay statisticiens ñoo koy jël di ko def bu ñu ñëwee ñu ne euh, la richesse nationale ñu jël production nationale bi yëpp ceeb riz euh, phosphate et cetera jël population wu Sénégal jël def ko cien bi richesse nationale sur la population ñu ne voilà lii mooy revenu national mais kooku ban sens la mm-hmm. amul benn sens ça ne veut rien dire parce que bu ñu naan revenu national boole nañ ci revenu ñi nga xam ne liggéey mais nattukaay dina jëriñ bailleur yi. non oui dina jëriñ loolu loolu beneen wax la xam nga dama jàng ci président Abdoulaye Wade mu ne euh, amul lu gën a faux le revenu par tête d'habitant hmm. xam da ngay jël la richesse nationale divisé ko par la population. nga trouvé benn quotient x. boole nga ci ñi xam liggéey waaw li ëpp solo mooy nga xool dëkk ak dëkk xool lañ manqué. dëkk bu amul dispensaire amul lekkool euh, ña fa dëkk bu ñu añee du ñu reer euh, ñooñu il sont pauvres mu ne taux de mu ne loolu mooy pauvreté pauvreté mooy koo xam ne loo bëgg a def doo ko mënoo ko def dëkk ba amul route tey village yi ñu créé nii tudde leen ville amul ñi ci am goudron bu ñuul bariwul xanaa goudron ba traversé dëkk ba alors nga bëgg a tuddee dëkk boobu ville da gis ndeysaan ñu def seen seen seen Euh, hôtel communautaire hôtel de ville mais loolu du ville les notions de ville et de village sont des notions de géographie d'urbanisme et d'urbanisme donc boo ne ville dafa am ay caractéristiques bu ville dafa am ay mandarga boo ne village dafa am ay mandarga boo demee ci dëkk boo ville boo xam ne il ñàkk a case la ba nga bëgg tuddee ville yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax villageois yi donc loolu dafa dañu dañu sauté ay étapes yu baree baree baree baree bare am na ci dëkk yoo xam ne érigé nañ en commune war nañoo nekk commune je donne exemple euh, exemple yoo xam ne xam naa ko Jaxaw Jaxaw am na toutes les caractéristiques d'une ville mënul nekk village donc Jaxaw mën nañ ko érigé en ville Thionck Essyl mën nañ ko érigé en ville et cetera et cetera mais boo demee sama village Diagane Barka Cilor bu ñu nee fii ville la naan mais ces gens yi blague ça c' un village boo demee Diosong wala nga dem beneen dëkk bu kër Samba Gueye et cetera donc c' la même chose boo demee euh, Saraya tey mën nañ ko def ville urbanisation bi la ñuy war a xoolaat. dañu war a xoolaat urbanisation baat leneen li ci topp lépp euh, ils ont mis la charrue avant les bœufs ñoom li li li ñu gën a def mooy utiliser ay slogans ah plus que plutôt que ñu euh, traiter la réalité sur le terrain et c'est la réalité sur le terrain quand même qui doit moom moo ñu war a guider dans les ci actes yi ñu war a poser n'est-ce pas pour développer le pays. conservation tamit nekk na loo xamante ne problème la. te baykat yi di ko wax. ah parce que exemple soble bi euh, wane na ko euh, am problème foo xam ne fa ngay conserver ba lu bëri di yàqu ci ci ci euh, la ñu bay loolu itam am nga ci pexe. alors du waxuma la rek conservation même le transfert euh, de la production des zone de production vers les zone de consommation c'est un gros souci. Mm. moo tax ba de lu chemin de fer de dañ ko war a yóbbu ci zone de production yi. jaaduwul. zone de production yi nekk dans les ñaay et dans euh, la vallée du fleuve Sénégal mm-hmm. que mu inaccessible jusqu'à présent bu bu tawee camions yi dootuñu mën a te dem ci zone yooyu pour mën a récupérer production bi yóbbu leen dans les zones de consommation mm-hmm. fa lañ ko bàyyi mu yàqu parce que bu ñu ko fa bàyyee ndax camion mënu fa accéder duñ am ay euh, complexe frigorifique yoo xam ne mën nañ ko fa conserver ba mu bañ a soppeeku yàqu te kenn dootu ko mën a te consommer donc je pense que dañu war a allier à la fois euh, def chemin de fer ak ay euh, route yu baax yu yegg ci zone de euh, production yi euh, chemin de fer moo dafa war a parcourir tout le pays jóge Ndar tàmbali na instant bi dafa yéex bon tàmbali na dara tàmbaleegul dara tàmbaleegul ils ont remis en service pour le Magal et pour le gàmmu euh, la ligne de chemin de fer entre Dakar et Touba c'est une bonne chose je les félicite entre Dakar et Tivaouane c'est une excellente chose mais saxaar gi mënatul la dem Ndar ndax boo demee dëkk bu ñuy wax euh, def naa raw la am na ko tabax mu ñëw bu ci raay bi presque bu saxaar ñëw day mbëkk mur bi dem yoonam xaw raw la xaw mu paal man gisal nag sama bopp dañoo ko mais ce loolu du foofu rek même à Saint-Louis emprise u raay bi nit ñi dañ ci tabax boo demee ci marché bi foofu mhm. Ndar tabax nañ fa donc tout le long entre dakaar et Saint-Louis dañu occuper emprise bi euh, et raay yooyu mais est-ce que xoolaat nañ ko diggante ba saxaar gëjee daw ak tey donc yaakaar naa ci liggéey boobu la ñu nekk moo tax ñu essayer de euh, en service benn saxaar bu doon jógee Dakar dem Touba ci màggal gi euh, jóge Dakar jëm Tiwaawan également ci màggal bi def naa loolu lu baax la waaye nag saxaar gi moom dañu war defar raay bu bees bu jógee Ndar dem Dagana Richard Toll roos Béthio continuer euh, Ndioum Podor wër dem Matam gi dem génn ji Kanel dem rejo dem Kidira loolu bu ñu ko defoon dem dugg aussi euh, dans euh, dans le département dans la région dans le département de Bakel parce que man bu ma ñëwee aussi bëgg naa créer waat ay régions parce que. ci li am ñii nga dolli. ah oui oui xam nga Bakel département de Bakel ci région de Tambacounda la bokk Bakel n'a rien a war avec Tamba nii du point de vue culturel ni du point de vue géographique ni du point de vue économique. Mm-hmm. waa Bakel soninke lañu xam nga booy def ay région da ngay fexe ba région bi euh, englobé ay nit ñu bokk culture nit ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci benn économie bi mm-hmm. nit yoo xam ne am nañu ay liens historiques donc Bakel région de Podor Podor ñu fa dëkk ils n'ont rien à voir avec les gens de Saint-Louis oui. et Podor Saint-Louis c'est presque 300 kilomètres imaginez ko bëgg casier judiciaire nga bëgg a jógee Podor ñëw Ndar amoo fa mbokk mm-hmm. parce que du ñu dëkk Podor ñëpp am mbokk Saint-Louis ensuite Mbour ñu dëkk Mbour du ñëpp am mbokk donc damay créé waat yeneen région région de Mbour région de Bakel région de Podor nga xam ne administration yi dana gën a jege administré yi nga fexe nag aussi def euh, réseau de chemin de fer nga enrichir ko euh, parce que boo jógee Dakar war nga mën a dugg saxaar dem Mbour jógul saxaar jógee Mbour dem Fatick comme ligne bi existait en ce entre Dakar Thiès. Gossas euh, dem ngin ngi néew Mbirkilaan Kaffrine Malem Odar Koungheul continuer Tambacounda euh, ligne boobu aussi dañ ko war a defaraat mu continuer aussi dem vers le Mali nga jógee aussi defal benn ligne de semaine de fer entre Tambacounda Kédougou jógee def benn ligne de chemin de fer entre Tambacounda euh, Vélingara Kolda mu am benn embranchement bu jëm Sédhiou nga continuer dem Ziguinchor et cetera dina faciliter les transports de marchandises aussi. dana faciliter surtout l'évacuation des marchandises parce que suñu route yi ñu def nii. bañ euh, war nañu xool ñu évaluer en douze ans ou vingt ans yi passé nii diggante reñu président Abdoulaye Wade rek reñu président Macky ñu xool ñaata la ñu def ci route yi ak ñaata la ñu ci defaat pour euh, euh, entretien wu route chaque année mu am entretien. day am na benn fer structure fonds d'entretien routier autonome boo xam ne chaque année. route yi ñu defaroon dañuy defaat xaalis bu bare bari pour entretien bi mhm. alors que bu ñu defaroon chemin de fer dinañu soulager bu baax a baax ces routes là donc je pense que euh, à côté de ce que le président Macky Sall euh, a fait sur le plan des infrastructures am na lu bare bare bari lu ñu ci mën a yokk loo xam ne euh, kenn ku nekk bu ñëwee dangay ngay euh, def loo xam ne sa morom defu woon voilà wax nga agriculture élevage agriculture élevage euh, transformation des produits agricoles. waaw ak chemin de fer mais euh, ci loolu nga nar a wékk. ah non non non am na yeneen yeneen yeneen. Ah axes yoo xam ne ci nga nar a inter réforme dina am. nee naa la euh, acte trois de la décentralisation dama koy abrogé indi delloo si waat communauté rurale ku war a nekk ñu def la communauté nekk commune ñu def la commune waaye communalisation universelle moom du am. les conseils départementaux laa dama koy dindi indiwaat les conseils régionaux. alors même bu ñu créer ay conseils départementaux à côté des conseils régionaux ñu créer ko alors ñu xool aussi euh, les impôts locaux ñu fexe ñi am xam-xam ci fànn woowu réfléchir ci euh, nga xam ne euh, conseil de euh, euh, les les collectivités territoriales dinañu am ay ressources propres jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui amul benn collectivité territoriale boo am ay ressources propres seen ressources yi ñaari type la fonds de concours fonds de dotation fonds de dotation état dafa décentraliser ay secteurs euh, confier ko à la gestion des collectivités territoriales mm. neuf secteur muy jël te du ñu jël moyens yi conséquents yi nga xam mën na couvri secteurs yooyu yëpp transférer ko aux collectivités territoriales ay miettes lañ jox fonds de concours yi euh, at mu nekk dañuy jël TVA bi euh, appliqué ci benn taux distribuer ko de façon inégale de façon très inégale mm. aux collectivités territoriales bokkuñu doole bokkuñu. du waxuma la bokkuñu doole mais maire bi bu amee relation ak président collectivité euh, ak ministre bi mooy ëpp mooy ëppale ndax ministre mooy déterminer pour chaque collectivité locale li ñu lay affecté donc loolu yëpp dañ ko war a teg ci yoon. mais loolu ñoom wedd wedd nañu ne joxewuñu noonu. li nga xam ne non non non man premier ministre Sénégal laa woon yow itam moo la ko ma ministre bi day xool ki mu gën a amal relation mais moom mooy ëppale et c'est normal aussi parce que am na ay. collectivités locales yoo xam ne dara amu fa. Hmm. xam nga ne nawetaan dafa dafa xew depuis cinquante ans ou soixante ans. am na dëkk yoo xam ne amul tere football. Hmm. wala tere football bi dafa nekk ci ndànd foy-foy gi il faut ñu clôturer ko defal leen ay ay camp yu baax en fer donc boo xamee benn nit bu nekk euh, Jalambere ca euh, région de région de Kolda mu ne la man sama dëkk euh, amul amul amul stade doo mun a tabax stade tout suite da ko defal terrain boo xam ne koy clôturer defal ko ay camp pour que xale yi bu ñu demee mën fa football. donc yu demee noonu quoi donc euh, li may dina am réforme institutionnelle euh, économie bi aussi dinañ ko xoolaat bu baax parce que dina am préférence nationale xam nga aujourd'hui euh, boo xoolee entreprise yi nga xam ne ñu ëpp doole ci réew mi. c'est des entreprises étrangères aussi bien dans le domaine des services sonate ak yooyu. euh, que dans le domaine des entreprises qui font les infrastructures am na ci entreprise nationale yu góorgóorlu CDE euh, Areski mais ak euh, euh, CSE ñu ngi góorgóorlu mais est-ce que volume mu marché yi ñu leen di jox dina leen permettre réellement ñu mën a ñu mën ci gédd je me pose la question on préfère parce que ñoo ëpp doole ñëw chinois yi ñu jox leen autoroute yi ñu di ko defar wala ñu jox leen chemin de fer bi ñu di ko defar parce que ñoo ci gën a xarañ ñoo ci ëpp moyen mais je pense que bu ñu defee transfert de technologie te loolu yépp ay waxtaan moo koy indi ak dugalante li ma gisoon président Wade di def buy tukki day yóbbaale ay entrepreneur sénégalais bu ñu demee ñoom link ak entrepreneur de réew ba muy dem waxtaan am coopération ñu fexe euh, am ay échange ba euh, bu ñu ñibbisee ñoom wàll bi ñu nekk ñu mën a aussi bénéficier de l'expertise des de ces entreprises étrangères donc euh, li ñu mën a wax daal ci programme yi xëy na ci diir bu gàtt bi dina ci xaw a dina ci xaw a xat. alors réforme des institutions euh, d' euh, d' accord na dégg naa li nga wax mais est-ce que euh, justice da si bokk. alors xam nga. ngir euh, ñëwalaat li nga xamante ne xëy na euh, saa su nekk day génnaat maanaam bu décision amee mu ci ëpp politique bi. non xam nga dafa am dafa am suma benn xaritu avocat bi ñuy défendre Mademba Sock en 99 mhm. tey ki nekk procureur général près de la cour suprême Mansour mbay maa ngi koy nuyu di jégul li may tudd turam ci émission bi suma xaritu avocat boobu dafa jàkkaarloo moom ne ko l'indépendance du juge c'est une question de choix mhm. le juge choisit d'être indépendant ou de ne pas l'être parce que les textes qui organisent leur profession leur garantissent l'indépendance oui. le juge sa Faye je ne le connais pas mais c'est c'est un juge indépendant il a rendu une décision en son âme et conscience parce que euh, les juges bu ñu toogee ci seen siège di àtte lu ñu àtte kenn mënu leen ko reprocher ki leen ko woon reproché mooy nga def appel wala boo fu nekk leen nga def opposition donc la loi leur garantit l'indépendance maintenant kenn ku nekk ak na ngay jàngatee indépendance bu fekkee ne yow indépendance mooy nga nga nga bañ def loo xam ne neexul kala fa teg ah fi dañ naan ki bët eh, fu mu la xooloo ngay xool. mais immixtion bi ñuy reproché exécutif bi. ci alors immixtion man mënu ma ci dugg mënu maa dugg ci xam nga man avocat laa musuma ko gis waaye nag ni yëf yi di doxee ni yëf yi di doxee. da ngeen bëgg a teg yëpp juge yi daal ne juge yi ñoom. non non non man man juge yi ma xam man ay juge yu indépendant laa xam man ji am na xam na ay juge yu indépendant ñoo xam ne état sax amul ñoom relation. oui la plus le plus souvent juge yi nekk euh, cour suprême seen grade moo leen fa yóbbu. soxna soos nga dégg madame madame Diop Guèye mais parquet général la nekk dañ ne la parquet général gis nga boo dañ lay jox instruction parce que le parquet dépend du ministère de la justice oui. dañ naan l'écriture est serve mais la parole est libre bo parce que ñooy bu ñuy jóg bu ñuy wax dañuy jóg taxaw la parole est libre mais mun nañ la jox ay instruction écrite très donc ni magistrature ni mu tëddee moom la tëddee suñu système bi tëddee ko France dafa am les magistrats du siège am les magistrats du parquet les magistrats du parquet assez souvent assez souvent on leur donne des instructions écrites mais assez souvent ñoo xam ne bu jógee taxaw dañu jël seen liberté président Ousmane Camara mais magistrat du parquet la woon bi ñu jugé Mamadou Dia mais bi mu jógee taxaw moom laa mës a dégg ci magistrat du parquet bu jóg taxaw requérir lu ne tëj leen ko nangam wax na li muy wax reel toogaat donc madame Diop Gueye bi mu ñëwee taxaw cour suprême aussi la mu wax mais son nom est définitivement inscrit dans l'histoire judiciaire du Sénégal elle a fait preuve de courage et d'honnêteté parce que li ko am ak conscience am mbay la wax le juge Sabassy Faye est un magistrat du siège kooku moom il est indépendant inamovible règle yooyu la mais xam nga inamovibilité bi dañ koy dañ koy xaw relativiser xam nga lu tax souvent dañ lay affecté ci benn poste boo xam ne sa grade du la may nga toog fa dañ par intérim nga fay nekk xam nga intérimaire moom intérimaire la donc à tout moment pouvoir exécutif mën na la fa jëlee c'est ça d'accord léegi ma ñëw ci euh, dund bi oui parce que nag wax nga bay wax nga chemin de fer nga yoo xam ni neex na dégg oui bu ñëwee lan lay changer ci dund nit ñi. parce que tey dund bi cher na euh, nit ñi ngi jàmbat courant faju boo amul moyen wala nga nekk ci ay euh, mutuelle doo ci génn. xam nga yooyu noonu yëpp tey. économistes yi dañuy wax ñu ne lu waral mu mu mu mu gën a diis ndax li nga wax nii bu ñëwee di indi lu yees wala day alléger population. xam nga économistes dañuy wax ñu ne l'investissement déclenche la croissance. Hmm. mais c'est la consommation qui soutient la croissance. xam nga. booy wax croissance day fekk mu am ay investissement maanaam ay borom alal ñëw dugal seen alal ci réew mi euh, bu créer richesse loolu bu amee dañuy day créer ay emploi hmm. parce que tant que ñu ngi ci taux de chômage boo xam ne ñuy wax vingt cinq pour cent mais ëpp na ko kenn xamul taux de chômage bi ni mu toll. bu Sénégal bu Sénégal kenn xamu ko boo waxee dañ nan la on a créé cent mille emplois c'est bien xëyu ndaw yi c'est bien que ñu ñëw. dans un village comme Diakane Barka ñu ngi defar yoon entre Passy Djilor Foundiougne ñu recruter ay jeunes yoo xam ne amuñu woon liggéey. ñu am revenu. parce que le tout et que xale yi am revenu am ay ressources ñu am ay emplois yu décents emplois yoo xam ne c'est des emplois non pas provisoires mais permanents parce que su fekkee dafa am. su euh, sur la population active du Sénégal évaluée peut-être à 7 millions ñu am 6 million yoo xam ne ñu ngi liggéey mais pauvreté daf fi jógee. parce que pauvreté boo booy natt pauvreté mooy koo xam ne amul liggéey amul kër gu mu dëkk am yër yu baax yu mu sol jàngul mënta faju mais boo commencé liggéey loolu daf lay wàcc. Hmm. non seulement yow daf lay wàcc mais dafay wàcc aussi ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw parce que fii kenn ku nekk. am nga vingt à trente personnes sa ginnaaw. boo demee surtout en milieu rural mais euh, boo amee vingt vingt deux vingt trois ans ñu takkal la soxna nga commencé am ay doom boo ay doom commencé juddu feebar yi commencé taxaw ci say doom nga commencé am ay devoir ci say euh, say soxna say doom say yaay ak sa papa parce que commencé nañoo màgget yàlla leen di suppléer ci liggéey bi ñu liggéey ci kër gi. et cetera responsabilité yokk donc tant que mënuñu. euh, créer les voies et moyens de multiplier les emplois pour les chômeurs je ne parlerai pas seulement des jeunes parce que chômage bi dafay frapper à la fois les jeunes mais aussi ñeneen ñoo xam ne y a des yoo xam ne toute leur vie ils ont chômé ça existe parce que amuñu fu ñu dugg amuñu formation amuñu métier amuñu dara tey ñi am formation sax dañuy chômer astama laa ñi amul formation am na benn projet boo xam ne projet bu baax la muy Prodac amoon mon avis Prodac dañ ko war a multiplier mu am ay domaine agricole communautaire dans chaque commune du Sénégal ñu euh, jël au moins cinq cents hectares de terre dans chaque commune du Sénégal affecté ko au domaine agricole communautaire jeunes yi nga xam ne ñu ngi ca localité ba di béy jeune bu nekk ñu ñu engagé la foofu donc ça veut dire que état dafa war a prioriser Prodac dugal fa alal ju baree baree bari euh, bu uuteeg vingt neuf ou trente milliards yi de budget yi nga xam ne dañ ko koy jox parce que li mu laaj mooy d' abord ñoom forage am matériel agricole euh, am tout ce qu'il faut n'est-ce pas pour entretenir une ferme agricole ferme boo xam ne dafay am à la fois élevage ak agriculture intégrée loolu bu ñu ko defee à l'échelle du Sénégal mais dañuy résorber au moins à quatre-vingt-dix pour cent le chômage des jeunes donc te bu boobaa ñu gën a mën a wax autosuffisance alimentaire parce que bay dundee la mm. dans chaque commune ñu béy fa la nga xam ne moom la waa commune bi di dundee euh, li nga xam ne moom la ñu dundee ñu prélever ko jaay leen ko foofu li ci des ñu yóbbu ko euh, au niveau national euh, jaay ko au niveau national donc loolu bu ko defee dans un premier temps je pense que il sera possible de résorber le chômage à 90 pour cent yeneen ñi nga xam ne nag les jeunes yi qui des écoles ñooñu aussi il faut essayer de trouver les moyens de les insérer dans la vie active à travers toutes ces sociétés là qui viennent investir au Sénégal nga xam day am. aussi euh, responsabilité sociétale boo xam ne dañ koy déterminer définir ko xam ne kuy ñëw di investir dans telle localité dañu la lii wàll wii da nga ko war a gérer comme emploi euh, des jeunes de la contrée lii da nga ko war a def comme infrastructure ci zone bi ngay euh, bi bi nga nekk bu boobaa je pense que les gens vivraient mieux à l'intérieur du pays. ndax dina wàññi ndaw yi jël gaal yi. ah oui oui dina ko wàññi je crois dina ko wàññi bu baax a baax xam nga loolu moom c'est un drame c'est c'est un véritable auquel on assiste en constatant que ay euh, milliers de jeunes parce que man bu ma gisee statistiques yi mais j'ai j'ai froid au dos j'ai froid au dos mais loolu aussi ça se comprend ça s'explique parce que boo tolloo ci tekki te tekki woo mais euh, da naan mais damay xarul parce que man je sers à rien je suis dans la maison sama papa lu lu mu war a def ci man def na ko sama yaay li mu war a def ci man def na ko euh, maa ngi nii tollu ci liggéey liggéeyuma donc à je sers war a am soxna aw soxna war a faj samay soxla mënumaa faj samay soxla te mënumaa dem sàcc mënumaa dem euh, def fi agression euh, donc bu may def damay dem dugg ci gaali yi ma dee ci géej gi tant pis programme yi ñu tëral pour ndaw yi dafa doyul programme man suivre ma programme bi xaw ma programme yi programme lan la xaw ma ko vraiment vraiment xaw ma ko du tout je ne suis pas ces programmes là donc bu ndaw yi demee euh, ñàkk bi yor lu ñu liggéey moo tax. mais moo tax ñu dem ñàkk liggéey ñàkk mën a. faj seen soxla xamante ne dañuy yor liggéey mais dañ ko fi bàyyi. dem oui mais mais yëpp xam nga le mirage de l'Europe am na man am naa rak j'ai boo xam ne il était sapeur pompier benn jour parce que ci koñ bi am na ay copains yu nekk Italie bu ñu ñëw indi oto ba ñëw ne ma bon écoute day démissionné sapeur pompier ma mère me met la dem ma ne ko man mënu ma yóbbu kenn. boobu j'étais premier ministre hein? Mm-hmm. alors il s'est il s'est euh, débrouillé benn waay yóbbu ko euh, mu dem Rome ba dem benn bés Rome fekk ko fa bu ñëw tel qu'il était habillé ma xool ko ma ne ko mais booy yow fii loo fi def tu as vu comment tu es habillé là mal habillé ma ne ko si ma ngi ñibbiwaat Sénégal la ah, jëm a wut liggéey parce que fii yow ni nga fi mel ni baaxul tu vois donc le mirage de l'Europe bi même s'est rendu compte que euh, dund bi mu yaakaaroon ne moo am Europe amu fa il est rentré après avoir perdu son emploi donc loolu am na mais y toujours ce mirage la de l'Europe yaakaar nañ ne Europe boo fa demee mais lu ne nga am te boo demee dans les rues de Paris boo demee euh, ci euh, booy circuler dans Paris mais dem ci rond-point yi ak échanger da gis gars yi lal seen ay laa nekk ci ay condition yoo xam ne baaxul mais bala nga ko bala ngaa euh, xam nu ko di waxee bala ngaa xam xamadi xaw laa rey donc tant que demuloo bu dund loolu sedd bi di la bëgg rey doo xam ne euh, heure bi ñuy coow du da ngay ñëw rek commencé buub xaalis di yóbbu Sénégal amul amu fa. amu fa amu fa. dañu war a xoolaat tey rapport yi nga xam ni am nañ ko ak réew yi ndax du du du peut-être français di nga dégg ñuy wax Espagne yi dem dëkk bi wala peut-être même dans la sous-région euh, jéem a dem ci yeneen dëkk yi ndax dañu war a xoolaat anam yi nga xamante ne nii moom la ñu euh, sekk ngir xool naka la suñu doom yi di demalanteeg di ñëw ci diggante réew yi. non euh, xam nga euh, je pense que man bala maa xalaata di def benn politique d'immigration pour notre jeunesse damay xalaata xool nu ñuy insérer suñu jeunes dans le secteur productif li ma a tudd léegi muy euh, fexe ba am ay domaines agricoles dans chaque commune du Sénégal loolu gëm naa ne bu ñu ko mettre en œuvre dina mën a résorber. chomage bi ci taux yu élevé euh, gëm naa ne suñu ressources publiques yi buñ ko euh, gën a mën a gën a gérer avec orthodoxie euh, yaakaar naa ne dina am ay résultats yu probants gëm naa ne aussi investissement yi état di def mu bañ a nekk ay investissement yoo xam ne investissement de prestige yaakaar naa ne loolu yëpp bu ñu réduire le train de vie de l'État Euh, xoolaat bu baax ni ñuy doxalee euh, ci secteur yu bare bare bari yaakaar naa loolu yëpp dina mën a indi euh, ay yaxanal ay moyens yoo xam ne dina mën a permettre ñu bañ a di encourager suñu jeunes yi ñuy dem plutôt à l'étranger plutôt que de rester dans notre pays parce que li xew Sénégal moo xew fépp boo demee man mos naa bokk ci benn sommet Union africaine boo xam ne le thème de ce sommet c'était le sommet qui déroulé à Malabo en 2010. C'était euh, l'emploi des jeunes. Parce que c'est une question qui, qui, qui touche tous les États d'Afrique, tous les, pour ne pas dire tous les États du monde. Angleterre lu tax ñu génn ci ñu def seen Brexit bi c'est parce que y avait trop de chômage en Angleterre pour ñoom tous les emplois étaient tenus par des euh, Européens venus des pays euh, de l'Europe de l'Est et, et aussi d'autres pays donc alors que les les les Anglais eux-mêmes euh, étaient au chômage La question de l'emploi des, des jeunes la c'est une question qui touche du chômage des jeunes, c'est une question qui touche tous les pays du monde. Donc, euh, yaakaar naa ne chaque pays doit élaborer euh, en, euh, en son sein euh, ay euh, politique d'emploi n'est-ce pas pour leurs jeunes maintenant euh, comme on ne vit pas en autarcie ndax dañu bokk ci ay structures communautaires mën nañu xool déterminer entre les différentes structures communautaires naka la ñuy fexe ba def ay politique de jeunesse politique d'emploi yoo xam ne Euh, dafay xëy na euh, lëkkaloo ba jeunes yi di mën a euh, jógee d'un pays en un autre te bu ñu jógee ci réew mi dem ci benn réew mën a am ay emploi yu décent voilà. ñu taxaw ci sa parti mu di UNP parti bi boo ko doon natt tey ba nga ko taxawalee ba léegi base bi taxaw na gën na yaatu structure yi. mat na. Euh, pour vous parler honnêtement euh, bi moom bi ma président Macky Sall euh, wooye ne ma naa ko rejoindre ci liggéey bi muy liggéeyal Sénégal am na lu bari lu mu lu mu yàq ci parti bi y a une léthargie parce que euh, daan ñu daje chaque semaine di waxtaan te loolu bi mu amee il faut dire que waxtaan yi ak daje yi daan na daan na soriwoo pour ne pas dire daaw daa dootul am alors donc euh, vraiment euh, parti bi moom lu ñu war a defaraat la ñu war a structuré waat la waaw donc je ne compte pas seulement sur le parti pour ci élection yi ñu jëm parce que xam nga euh, élection présidentielle dafay dépasser cadre u parti parce que c'est c'est la rencontre entre un homme et son peuple donc je m'adresse directement au peuple en premier aux gens qui sont avec moi dans le parti donc vraiment euh, parti bi moom xam naa beneen affaire la xam naa dinañ ci dama ciy waxtaan ak ñi ma nga xam moom ñoom laa ko seqal quoi pour le moment. mais élection yi coalition ngay ko pour le moment xam nga coalition moom bala moo judd rek ñu dépassé phase du parrainage bu parrainage yi jeexee ñi nga xam ne dañ leen a retenir dinañ ñëw jàppale ñi nga xam ne euh, jàll nañ ci parrainage bi mm-hmm. donc incha allah euh, xam naa dañ dem euh, en coalition ci élection présidentielle bi beneen point bu mujj bu ma bëgg a aborder parce que nekkoon nga fi PCA Air Sénégal toog gis kër gu mel noonu di am ay jafe-jafe nan la lay def. bon xam nga eh, également dañuy euh, Air Sénégal compagnie bu baax la parce que pour la première fois ci histoire du Sénégal ñu am compagnie bu am ay avions yu bees avions yoo xam ne zéro kilomètre. Mhm. alors euh, au début ñaari ATR lañu amoon ñuy def euh, Dakar Ziguinchor yenn saa yi Dakar Bissau euh, Dakar Praia. mujj ñu am ay Airbus euh, A trois cent neuf cent ay Airbus euh, trois cent néo mhm. vraiment muy avion yi mujj ci lii Airbus defar alors je pense que euh, compagnie de transport aérien gestion bi dafa jafe parce que man daan naa jël euh, avion bi en tant que simple passager Euh, jóge dakaar dem Bamako ci avion bi war a continuer Burkina Faso mm-hmm. mais bu ñu yegsee Bamako su ma wàccee euh, ñu ne ma à heure la avion bi war a delluwaat donc bu ma ñëwaatee di jëlaat avion bi damay ñëw quelques minutes à l'avance dama ko fay fekk bu ma laajtee lu tax ñu ne ma parce que jotul yegg Ouaga ndax amul passager pour dem Ouaga mm-hmm. mujj gi dañu supprimer li ñu ba ko Ouagadougou ba ma fay nekk de ci li ma xam. donc euh, yu demee noonu euh, mooy indi ay jafe-jafe surtout que réew yi léegi réew ñu wër yëpp kenn ku nekk am na sa compagnie nationale. boo demee am na Air Burkina am na Air Côte d'Ivoire Air Mauritanie Air Sénégal xaw ma ndax am na Air Niger wala Air Tchad donc loolu li muy indi ci ay jafe-jafe mooy euh, compagnie yi seen taux de remplissage du demee noonu te mënuloo investir euh, ci benn vol nga ne def naa ci euh, vingt millions te lim lay rapporter di dix millions boo ko cumuler dans le temps perte yi dafay rëy alors Air Sénégal euh, avion yi muy yóbbu France ak Amérique ñoo gën a baax ci ligne yi te yooyu en tout cas ba moo may suivre information yi daan na petit problème petit souci mais mu ngi doon dox avion yaa ngi doon dem di dikk di yóbbu ay passagers am na ay incidents yoo xam ne du Air Sénégal moo koy provoqué par exemple bu benn grue retard yeeg yenn bu benn grue ñëwee di di indi ay bagages wala muy traversé ba mbëkk avion Air Sénégal loolu du responsabilité Air Sénégal alors retard yi également xam nga enregistrement yi ñu def fi aéroport du ay agent Air Sénégal ñoo koy def boo demee le soir day lu mat 6 à 7 compagnie yuy dem mais personnel bii def enregistrement yi du personnel lu Air Sénégal personnel lu beneen beneen société la bu nekk foofu boo amee retard foofu parce que dafay am rush en général les gens arrivent à la dernière minute boo amee rush euh, nit ñi di enregistrer enregistrement yi day yéex bu enregistrement yi yéexee mën na impacter ci heure de départ u avion bi mais dañ naan Air Sénégal fekk du responsable du Air Sénégal c'est pas Air Sénégal qui enregistre les passagers donc man daal li ma jàpp mooy Air Sénégal est une compagnie nationale boo xam ne bu ñu ko jàppalee dana dem ndax xam ne avion yu baax et am nañ ay projet ak ay projections yu baax euh, sur le futur. très bien voilà. alo euh, merci beaucoup Souleymane Ndéné Ndiaye. émission bi jeex ah jeex na temps bi mat na. ah oui. wala <laughs> temps bi jàll. <laughs> en tout cas merci. merci à vous nañu bu baax ci euh, euh, li nga teew ak ñun waxtaan ci Face à jërëjëf maa ngi lay sant bu baax. di lay souhaiter bonne chance ci parrainage merci beaucoup. jërëjëf merci merci beaucoup également yéen ñi ñu doon euh, teewlu di leen euh, jaajëfal remercier équipe bi équipe technique bi euh, on se donne rendez très bientôt incha allah. moome lu réew mi yitteel ñu bari moo tax ñu fas yéene dalal ay kilifa boroomi xam-xam fii la teew di doon samay gan moo xam ci pouvoir lañu nekk opposition wala sax société civile lépp ngir gindi askan bi ñu daal di gëna leer ci li nga xamante ne rek mooy li ñu bokk ay bés bu nekk lay doon fii ci Sans Limites TV bu leen ko wut